yaa am ndigal yow la ni topp faw jàmbaar ji am ndigal en Serigne Saliou sunu xalifa yaa am ndigal yow la topp faw jàmbaar ji yaa am ndigal Serigne Mountakha mi xalifa Serigne Bamba yaa am ndigal li mu la digal nga jëfe ko dimbali nanu yaa am ndigal sëriñ Muntaxa digal na taalibe yaa am ndigal nanu àndandoo te maase yes lu ci yaa am ndigal asaraki yeeg sa mbokk yee ngi ci yow yaa am ndigal ak taalibe yi mi ñépp la yaa am ndigal ndigalu sëriñ Tuubaa li ke bugg ko moy yaa am ndigal foo mën a jëm seytaane mooy ki yaa am ndigal jërëjëf màggal gi euh, xam nga day pàcc boo xam ni ñun cantaakoon eh, yoon wi eh, Serigne Béthio sunu sang ba eh, daa da daa fesoon ci màggal da doon jàmbaar da doon koo xam ni bu màggal weeru safar masaana teru dootul nekk sax ñi ko xam dëgg-dëgg danañ xam ni kii nekkatul ngir man ngir waajal gu muy waajal màggal gi loolee nag mel na ni wàll nanu ko ndax boobaak léegi ñu ngi ci Euh, nañ ko daan waajale rek lañ ko waajale mm-hmm. euh, daaw sunu toogaay bii ci daanaka ci ñaari weer ñetti weer lan ko lan ko waajal mm-hmm. te gis ngeen na na na mu mujje da mm-hmm. euh, defee nañ ko nan ko nan ko bëggee ñu ngi ciy sant Serigne Touba ren ñu ci toll mooy njëndum nag bi te contexte yi tax ñu soppi fu ñu daan jëndee ay nag yi lañ daan am habitude di jënd ay nag waaye ren euh, yëngu-yëngu ya daa tax pour plus de prudence ma ni bokki taalibe yi nañ leen dem Mauritanie ndax foofee it sëñ Béthio aada woon na di fa dem ba amoon fa ay wëlëre ci njiitul sëriñ Xaadim sama rak euh, def nañu ab mission ñoo nga fa jënd nañu ay nag ba nag yi tey fii may waxee ak yow au moment où je vous parle nag yaa ngi Medina Njaaj bi euh, ñu ngi war a ñëw tuubaa ci guddi gi au plus tard demain nag yi danañu nekk incha allah euh, Touba euh, xam naa bu occasion lay doon pour yéen bu ngeen ñëwee ci ci ubbiteg jumaa ji ñu yegg bu may def réception yi euh, réception bi ñoo ngeen gisaale ko. léegi mën nañ koy xam ci waaw loolu nag moom bu ngeen yeggee rek di ngeen ko gis ndax bëgguma fee nekk di avancer ay chiffres. sunu sang ba daan na wax naan ab murit du uj bu uj bu mooy di jëf di ko wone ak di ko wax. ku ne xam ne màggal gi dafa tombé benn contexte Covid. sëñ Mountakha am ndigal lu mu ci joxe. mooy hmm. respecter les mesures barrières. Hmm. ca d'accord ku leen xam-xam lañ ci wàllu organisation. Hmm. yan disposition ngeen jël. ci diggante jannatu ak li ko wër. waaw euh, ren ay soppeeku sax dina am ndax loolu ginnaaw bu ma ci diisoo ak Serigne Bass Abdou Khadre euh, sunu kilifa gu baax googee. may ña occasion di ci potoxlu di ko sant euh, ginnaaw ma ci waxtaan ak moom ren euh, rassemblement yi noonu ñu ko daan defee danañu bâche nag ci pénc bi ndax euh, màggal gi yoor-yoor bi ren dama ko accès ci njàngum xasida mi ak alxuraan ak bernde danañu jàng ay xasaayit danañu jàng alxuraan ñu bernde loola nag tax na danañu donc ñoom ñooy occupé foofee ñu daan occupé ci biir pénc bi ñoo ñoo koy occupé rek dana nu def mbaarum siyaar moo xam ne sëriñ bi euh, defoon na ko mu nekk ci biir kër gi euh, ci mbaar moomu fa ne man pour éviter contact boobu ndekki yooyu ñu daan def habituellement nga xam ne sax ci ginnaaw gi rek lañ ko ci sax intégré euh, ren du ñu def loolu ren ci ci danañ ko defee daal nu murite nu amuk taalube ndax ak taalube dafa sew te lu koy yàq daa gaaw euh, daf cee am mbir yoo xam ni da ce bokkoon te dama ko cee bëgg a dindi ah, waaw lépp rek nag ngir jëmale lépp kan kon euh, ren danañu contexte boobu dana tax danañu indi ay ay ay ay modification ce nam daan doxe waaye nag du yàq dara ci bernde yi nga xam ni ñun bernde moo moom mooy nga xam ni mooy dëgg-dëggi màggal gi moom luñ ci daan def benn danañ ko ci def du ko te ren euh, maa ngi leen koy wax fuñ ci tolloon daaw rek toll nañ fu ko waaw ren moom ren moom du ngeen ci darañ ci yegg ren moom sëriñ bi dimbali nañu ba lu ñu amoon daaw rek am nañ lu ko ëpp ren loolu nag ak cant la moo tax ma koy wax waaw loolu it danañ ko def foofee ma la wax du doon sax ci bâche ndax bu boobaa dañuy dajaloo waaye am na mbaarum siyaar moo xam ni foofa la ñuy ne respecter distanciation sociale yi Ah, ah di siyaarente di di di di def sunu cant ak di waxtaane sëriñ loola moom danañ ko def. bi nag daa am question boo xam ni. Mhm. waa àdduna bi ñoo ni nan la ko laaj mhm. mhm. ba la gisee. mooy gan am. keroog bala sëñ Cheikh Saliou ne si kàttal biir kër sëñ Saliou yëg-yëg bi yëpp. ah keroog nag sant naa sëriñ Saliou keroog moom bég nañu mbégte moo xam ni. séeréer lu ñu ko kudul sëriñ Tuubaa. ndax foofee mooy dàtt ba. foofee mooy sunu cosaan. biir kër sëriñ Saliou. foofee la nu miin. foofee la nu gimmee fa la nu xame lépp fa la ñu sunu bàyyi toqantal fa la ñu defale lépp moo tax keroog bi ñu ko joxee wax dëgg yàlla na ma ko waxee woon rek sama xel daa dem ci sunu jàmbaar ja moom Cheikh bi xam ni moom moo waral loolu yi cant ji lépp mooy mooy mooy borom ci la ñu eh, doxe noonee eh, jëfe ko ak ci ci mbégte nit ñi nee na li leen yéem mooy keroog ci sëkk ba biir kër sëñ Saliou da ngaa takk sa digg di yenu ci bool yi ni taalibe di ñu ko defee loolu yéem na mbokk taalibe ah loolu nag warul la yéem mbokki taalibe man loolu laa mas a dëkke ak ñoom man liggéey bi ah su eh, ku xamoon sëriñ bi mhm. amoon na fulla ju toll ni mhm. daawul yar doomam ci ci bañ a liggéeyal sëriñ bi waa ah, déedéet ñun danoo mas a laxasaayu mhm. ànd ak moom lu li ñuy lu ñëpp di def moom lañ daan def ci loolu rek lan lan ñu yar ci loolu rek la ñu xam te ci loolu la ñuy des waaw jërëjëf